sur les emplois présumés fictifs ah dafa naan loolu ça intéresse encore boo de gens c'est ça voilà gis ngeen mu jóg ne dama def benn audite boobu ma ñëwee pour xool kan moo fi nekk ak kan moo fi nekkul est-ce que Moussa Diop da doon utiliser ay nit pas ay nit ah di fay ay salaire ay ñoo xam ni nekkuñu ci kër gi ça s'appelle ñuy gagné ay salaire te peut di ñëw rek pointé dem wala mosuñu liggéey jox leen date ci 3200 salariés ne leen dans un moins d'un mois képp ku ñëwul ñu photo la képp ku ñëwul signé képp ku ñëwul indi ñaari photo tu es un emploi fictif audit boo xam ni audit boppam la donc orienté boo mu defee loolu lu ma leen wax rek cuune cuune dong lay doon tenirul compte ñi nga xam ne ils sont en indisponibilité tenirul compte ñi nga xam ni il sont en congé à Tambacounda à Fongolemi à Salamata Warkadiéré Mbëlëxe tant que sa congé joxul doo dem si tëralul compte ñi nga xam ni dañoo nekk en arrêt maladie moom daal le 15 jot na ñi indi nañu photo signé wuñu ñii photo nañu signé wuñu ñii ñëwuñu photo wu ñii ñu ngi ci réseau bi fii di liggéey am seen bon bordereau de versement un receveur boo ko nekkee fictif da dalay indil preuve que mi ngi liggéey tous les jours bu versé day am papier cacheté montrant que versé na tey temps mais ñëpp yónnee nañ ma seen ay documents ne ma xoolal yow lay wër. diñ ko yónnee ci yow fictif parce que dañuy naan pare dama recruter ay ay fictif dama leen jox benn exemple boo xam ne moom mooy l'exemple des exemples mooy ban est-ce que vous connaissez Mamadou Goudiaby l'ancien euh, secrétaire général de de Dem Dikk du sama xarit ñëpp xam ni ko mais boobu moo fa toogee piano piano parce que un taureau on le tient par les cornes et par la queue ki ko remplacé il s'appelle Aline Badra Konaté c'est le secrétaire général aujourd'hui du plus puissant syndicat de Demdik il est considéré comme fictif il ça vingt ans qu'il est dedans indiwuma ko parce que uniquement ñëwul pointé wu il était en congé est-ce que vous voyez le le le le, montage l'un de ses euh, bras droits qui s'appelle Atou il me connaît très bien l'autre Mbor je cite le, le, le chef de division de la, de, du patrimoine, Khali Samb, est considéré comme fictif dama ne sa waay ji na dem jàng fekkee man la ñuy wut il na me verra pas il ne m'aura pas te d'ailleurs boo mu waxee jour boobu boo mu def conférence de presse si vous regardez ñu fa nekkoon am na ñu nekkoon ci buntu buntu direction bi di buuxante foofu di ko naan nous ne sommes pas des fictifs dañuy ñëw léegi wan la photo moo manqué woon mi ngi nii et d'ailleurs dans la conférence de presse ku ñëw ma fay la boo jàppee nit boo xam ne ci fiction la nekk en droit du travail motif réel de licenciement la c'est pas un motif de joxe gâteau ça vous ku de ku ñu jàpp ci fiction di lay dàq faute lourde la mais nga ne boo ñëwee ma jox la tàngal ça signifie qu'il n'est pas sérieux deuxième chose pourquoi il n'est pas sérieux et je l'envoie à cours de droit parce qu'il se prend pour magistrat un magistrat qui a déshonoré son statut qui se permet de faire de la politique man su ma amoon euh, comme incompatibilité boobu du ma ko def détachement euh, disponibilité la ci yem il est en disponibilité est-ce que daañu ko dàq pour disponibilité mais madame n'est en disponibilité mënu ma dàq quand tu dis en tant que juriste homme de droit et magistrat j'ai peur pour ceux qui seront devant lui maa ngi ragal ñi nga xam ni mooy leen dem di leen juger après man bu ma jegee jugement ku ma jege En tant qu'avocat, je le récuserai. Il n'est pas indépendant, il n'est il, pas incolore. Un magistrat doit être indépendant, incolore. Il une couleur. Quand dès que tour bi muni ay emploi fictif mais damay présumer rek présomption la dé présentiment la dé do baye ba sa audit jeex présomption de culpabilité bu ko magistrat di wax kooku bul dugg sax ci salle ba xam nga dégg nga ça n'existe pas lu ñuy naan présomption de culpabilité présomption d'innocence la ñu xam il est dangereux ce monsieur il n'a qu'à nous dire comment il s'est retrouvé à Matam affecté d'autorité déggu leen ma de il n'a qu'à expliquer pourquoi il s'est retrouvé à Matam affecté d'autorité sur le plan disciplinaire bëgguma wàcc bi à son niveau vous comprenez ce que je veux dire bu fekkee népotisme xamuma ko ay sénégalais bu ñu remplir des conditions ñu jox leen sur l'histoire des fictions vous avez la liste ñi nekk technique et vous verrez très clairement ñii présenté mais kii dañ ci bind recensé congé vous pouvez lire pour les autres il est considéré comme fictif uniquement parce qu'il était en congé gis nga yàq der le coup est déjà parti Sénégalais yi fiction fiction fiction gis naa leen buzz bi ah parce que sa Diop ça fait vendre ce qui est faux d'ailleurs comme que génnee na ko ci gémmiñam rek il va être comme ce que j'avais fait à Diaz une citation directe en cours et eh oui man sama der